wajalilaayi maskani Tuubaa at mu bees pas-pas yu yees ñu waajal suñuy 12000 francs CFA ngir jëmee tubaa ca kanam ay ca murit liggéey bi bu mu laal suuf à partir du 1er janvier na ñëpp matal seeni at ay ca murit liggéey bi bu mu laal suuf laaj lu man def fu ñu xam tubaa ca kanam rek ñëpp man maa rek mën ngeen koo jaarale ci application Wave application Orange Money Free Money Wizall Money. 78 544 33 33 Touba ca kanam laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Touba ca kanam Nooru Daarayni ñoo ngi nuyu ñëpp euh, di leen ziyaara di leen fas yéene leen a indil. li nga xam ne Touba ca kanam dajale na ko ci weeru novembre 2021 ak li nga xam ne génte génne na ko ci ak li nga xam ne moom moo des ci compte Touba ca kanam yi euh, dañ koy tàmbalee ci Touba dajale nañ fi 55 millions million mille 860 Mbacké 775 mille euh, numéro Wave di 78 544 33 33 dajale nañ ci 835 mille 980 bu dee ci plateforme web bi seen application bi dajal nañ ci 12 millions 639 mille 417 francs bu dee Orange Money bi 78 544 33 33 ak application Orange Money bi bu Touba ca kanam di jees 144 jees 621 jees boobu dajal nañ ci million millions 58 mille 230 francs euh, Dakar dajale nañ fa 4 millions 448 mille 300 cent 101 mille 500 Bambey 320 mille jurbel un million vingt six mille daayira Babul Ayaadi cent deux mille Goudiri trois cent vingt mille Jifeer deux cent mille Joal cinq cent quarante mille Xombal un million cinquante mille Kaolack deux millions quatre cent soixante neuf mille Kébémer un million cent vingt huit mille Kédougou six cent soixante mille Kolda trois cent six mille Louga un million neuf cent vingt mille neuf cent cinquante Mbour deux 847 000 francs département Dagana 500 000 Moudéry 50 000 Typ 50 000 croisement Diaroumbé 53 000 Ndiawara 100 000 Ngaye 260 000 Darou Salam Diouf 650 000 Bakkan Laman Refane 50 000 Saint-Louis 677 000 Ourossogui 170 000 Darou Salam Kadior 30 000 Taïf 30 000 Daaru Moxti cinquante mille Cey Cey cent mille Tamba sept cent quatre-vingt-sept mille versement anonyme muy ñi nga xam ne dañoo dem ci banque bi dugal seen xaalis te xamul ñan la boo ko toppee mu ngi toll ci un million deux cent cinquante-sept mille deux cent cinquante-deux francs CFA boo boolee biir réew mi muy zone nationale li fi Touba ci kanam daje lépp mu ngi toll ci quatre-vingt-quinze cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-neuf bu dee lu jëm ci wàllu bitim réew. partie Europe bi Angleterre sept cent quatre mille Allemagne un million quatre vingt mille neuf cent vingt et un Italie cinq millions neuf cent mille huit cent vingt cinq France deux cent quatre vingt neuf mille trois cent soixante Espagne six cent soixante mille quatre vingt loolu soo ko boolee zone Europe bi ñu ngi dajale huit millions huit cent huit mille deux cent quatorze francs zone Afrique Mali cinq cent trente mille Gabon. cinq cent quatre-vingt mille Djibouti trois cent soixante-dix mille Cap-Vert trois cent mille Togo quarante mille Maroc deux cent quatorze mille vingt francs Côte d'Ivoire un million cent mille Guinée-Bissau six cent soixante onze mille trois cents Afrique du Sud huit cent mille francs zone zone Afrique li ñu dajale mu ngi toll ci quatre millions six cent cinq cent vingt francs CFA zone Asie benn dëkk moo fa versé bu ñu wax Liban ñu ngi verse cent cinquante mille francs CFA. ba tey ci wàllu bitim réew zone Amérique Brésil cent quarante deux mille cinq cent Chili cent mille Uruguay cent mille États-Unis deux millions trois cent trente cinq mille cinq cent soo ko boolee muy deux millions six cent soixante dix huit mille francs CFA. opération wàllu bi deux cent mille euh, dugg na fi ci weer wi muy jaayante bu ñu defoon ci na ci ci euh, mois de novembre. Euh, lamp yi nga xam ne Touba Ca Kanam da ko fàggu euh, mbokk taali bi di ñëw di ko wecceeku fii muy lamp yu kër yi euh, Touba Ca Kanam encaissé na ci trois cent trente mille francs massification xaalis bi ñu leen génnewoon ci màggal gi des na six cent quarante quatre mille deux cent bañ delloosi ko lu jëm ci wàllu salaire yi liñ ci génne woon des na deux cent quinze mille francs bañ delloosi ko li nga xamante ne bii Touba Kanam dajale na ko ci weeru novembre ci biir réew mi ak bitim réew mu ngi toll ci cent douze millions sept cent quatre vingt mille deux cent vingt-trois francs CFA. ci lu jëm ci wàllu décaissement yi ci mois de novembre chantier bi nekk université Sëñ Muntaxa bi tubaa ca kanam def na ci quatorze millions neuf cent quarante-six mille deux cent trente-cinq francs CFA. poste santé bu Ndam trois millions deux cent quatre-vingt-sept mille cent. poste de santé bu Touba Ndiarème sept millions. 381 200 opération defar yoon yi Touba Ca Kanam def na ci 10 millions 889 mille 479 lu jëm ci wàllu fonctionnement mooy li nga xam ne mooy yu urgent yi nga xam ne dana jaar ci trésorier bi génn yooyu Touba Ca Kanam def na ci 3 millions commission massification 275 mille logistique 15 millions 96 mille 918 am na Touba kanam machine bu muy monter machine pavage bu muy monter fële ci kër Sëñ Touba gi nekk Sam ñu ngi ciy dépensé ci mois de novembre cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent cinquante commission reboisement Touba def na ci deux millions huit cent vingt mille quatre cent cinquante opération wàllu ñi nga xam ne dañu woon ci mbënd mi Touba def na ci onze millions deux cent quarante mille commission scientifique nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu daara yi def nañ ci dix millions sept cent quatre-vingt-neuf mille cent soixante-deux mille opération leeral muy làmp yi ñu doon monté ci biir dëkk bi def nañ ci trois cent treize mille charge fixe ak salaire yi mois de novembre mu ngi toll ci sept millions cinq cent mille cinq cent francs commission administrative def nañ ci neuf cent mille huit cent cinquante commission féminine cinq cent trente quatre mille cinq cent sous commission membre ñi yor wàllu carnet reçu yi ak blog yi def nañ ci deux millions cinq cent francs frais yi nga xam ne mooy frais bancaires yi def nañ ci dix neuf mille trois cent soixante huit mille. li nga xam ne Touba kanam génn na ko ci weeru novembre ginnaaw bi mu dajale xaalis mu ngi toll ci quatre vingt onze millions huit cent trente cinq mille neuf cent douze francs li ñu dajale woon ci mois de novembre muy cent douze millions sept cent quatre vingt dix mille deux cent vingt trois li mu ci génnee toll ci quatre vingt onze millions huit cent trente cinq mille neuf cent douze mu des vingt millions neuf cent cinquante quatre mille trois cent onze. fekk si 595 millions 912 mille 841 yi nga xam ne moom la Touba ca kanam dese woon ci ay comptam ci weeru octobre kon weeru novembre bi Touba ca kanam mu ngi am ci ay comptam 616 millions 867 mille 152 francs ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan dërëm bu ci waay def rek yàlla na ko Sëñ Touba nangu te barkeel ko di sant mboolem waa Touba ca kanam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wajalilaayi maskani Tuubaa at mu bees pas-pas yu yees ñu waajal suñuy 12000 francs fa ngir jëmee Touba ca kanam ay ca murit liggéey bi bu mu laal suuf à partir du 1er janvier na ñëpp matal seeni at ay ca murit liggéey bi bu mu laal suuf laaj lu ñu man def fu ñu xam Touba ca kanam rek 2022 bi ñëw man naa woo ñëpp su ko fee man maa na yéen rek ñu ñuy pousse mu jëm ci kanam application kanam. mën ngeen koo jaarale ci application Wave application Orange Money Free Money Wizall Money. 78 544 33 33 Touba ca kanam laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam.